mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy topp ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar di jiital ci ziar bi ak nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko lool te wéral ko waaye di ziar bu baax Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda Fall di ñaan suñu borom yàggal ko lool te wéral ko di ziar mboolem njabootug Serigne Touba gépp waaye mboolem njabootug Maam Ibrahima Fall gépp mbokk yi comme ni leen waxee woon rek durant weeru koor gi ñu fas yéene ne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba moo ko digaloon jàmbaaram jooju nga xam ne mooy Maam Ibrahima Fall ngir mu koy toggal ay ndogo jógee fi mbooleem njaboot gi di ko taxaw ñu taxaw fii nag tey ci péncum paaleen fii ci kër Serigne Cheikh Fall Mbawar di ñaan suñ borom yàggal ko lool te wéral ko noonu lañ fas yéenee ànd ak yéen nag ci mbooleem buntu kër yëpp rek dinaa weeru koor gi di jeex dinañ fas yéenee dugg ci biir euh, teewlu kàddu yi nga xamante ni moo jógee ci sëriñ bi waaye teewlu kàddu yi nga xamante ni tamit ñi ne ci waañ bi yéeg ñi ngi koy yëkkati jëmee ko ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy liggéey xam naa incha allah duñ guddal dañuy dugg ci biir rek léegi won bi génnaat incha allah rabbi àndaat ak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 illallah illallah la ilaha mbokk yi euh, ni leen ko waxee boobu ba léegi ñoo ngi fii ci waañu kër Serigne Cheikh Fall Mbawar kër Serigne Aliou Fall Mbawar ñu taxaw ci soxna yi gis ngeen euh, liggéey bi nga xamante ni moom lañuy ñuy taxaw seen passeef ci liggéey bi soxna Astou Diallo ñu ngi lay nuyu di la nga jiite waañ bi euh, nan ngeen taxawee liggéey bi ak euh, seen préparation euh, bu weer wi teroo ak bi nga xamante ni tàmbali nañu ndogo yi ak waxtu yi nga xamante ni moom ngeen ni xëy si fii ba mën a sontal ndogo yi. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyoo di ziar di ñaanal suñu Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal suñu sëriñ suñu Seex Fall Mboor fana doon aw doj yàgg fi lool Fall. te ànd ak wér ñu yàgg koo liggéeyal mu yàgg ñu sant ñu yàgg koo defal ndax ñun amuñu loolu lu sëñ Cheikh Bamba war moom la suñuy sëñ gëm ñu ànd ak suñu borom kër gëm ko waaw wax ñu préparation bi moom bu màgg <coughs> weer wi teroo lañ koy waajal weeru baraxlu wi teroo rek la ñuy waajal koor gi te xam nañu Baye Fall amul leen lu dul ndigal nan ngay nekkeek ñoom ci waañ bi bu ngeen xëyee ci lan ngeen di nekk ak lan ngeen di njëkk a tàmbalee liggéey bi. bu ñu xëyee suba dañuy génne bagage yi bu ñu xëy see fii dañuy génne bagage yi jëlee ko si kër sëñ benn ko si waañ wi xooli pomme de soble génne loo xam ne rek war nañ koo jëfandikoo ñu génne ko di xaar ndigal li ba heure bi jotee ñu taal. Euh, euh, ñu gis ne euh, togg mi sëriñ bi dafa wax ne waxuma la sax maanaam barkeelu ci waaye ñam xorom sax nee nañ amu ci. waa ñam xorom moom sëñ bi da ko waxee moom lu am la ñam xorom moom amu si moom ndax première jour bi njëkk a ñëw. si la ñuy def suñu qualité. Mhm. ni ñu war a xorom nañ koy natt suñu loxo rek bu ñu nattee suñu loxo premier jour bi mu yekkee mu yemoo ñu xam ne loolu mooy wéy ba weer wi jeex te maanaam du ëpp du yees. du ëpp du yees de yokk gi nga xamante ni sëriñ bi yokk na ko liggéey bi daaw ak ren loolu yéen ñi nga xam ne yéen na ci waañ bi yéen xam ngeen ko bu baax. waaw xam nañ ko bu baax kay na sëñ bi boo yokkoo rek ñu ne dañuy yokk bu sëñ bi toog rek fa la ñuy toog ni mu ko yokkee rek mu bëgg ko ñun bool yi demee ne noonu la deme ba léegi mbokk yi ñoo ngi fii ci kër sëñ Cheikh Fall Mbawar ñu toog ak soxna maam Faty Fall mu jiite soxna yi waaye ñu ci biir kër gi biir kër sëñ Cheikh Fall Mbawar bokk ci njabootu sëriñ bi waaye di ci taxaw taxawaay bu am solo nekkub taalibe tamit ci kër gi. Euh, waaye ay at a ngi nii ñu di ko fekk di waxtaan ak moom ci lu jëm ci liggéey bi soxna si ñu leen nii di la ziar. waaw dellu ziar bu baax a baax di kontaan ci ñëw gi di ñaan ñu fekkee ko déwén yu bëree bëri barke sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall di tàmbalee bisimilah maanaam di ñaan ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbi alamina waaw wàññi daal moom mooy yokk bi rek ki laa nekk te yokk moom ku yokkuwul rek da ngaa wàññi euh, buñ sañoon lu jëm ci sëñ Tuubaa lu ne day fees rafet mel nañ ko bëggee loolu nag moo tax ñu nekk ñun ci yokk bi muy waañu ci biir kër gi ci xay gi di yokk bi ñun sët yi daal ñoo ko yore mooy waañu yokk bi waaw yokk bi buñ ko bëggoon a xam nan lay ginnaaw buñ toggee buñ buñ buñ toggee eh, xéwal yëpp dafa am beneen côté boo xamante ni eh, dañ ci beraat yeneen xeetu togg. waaw buñ toggee ndab yëpp fukki bool yeeg juróom-ñett bàjjen njaxat moo yore ginaar yi ak misi yi mooy suyeer bi su ko defee dañuy defaat yeneen cin yoo xam ne dañ koy def yokk bi di ko yokkaat ci bool yi ba mel ni ñu ko bëggee looloo tax mooy ci yokk bi nekk ci biir kër gi. dañoo bëgg bool yi di méngoog jamono di rafet di mel ni ñu ko bëggee ndax Sëñ Tuubaa boo ko yoree la nga gën a bëgg koo jox mu defal li nga gën a bëgg. ngeen ànd ak koo xam ne ku ko euh, xam-xam ko ci ak njàmbaar ci yoonu maamam wi wuutu waajuram di doxal ndog yi suñu Cheikh Fall Mboor di ko ñaanal baax suñu borom yàggal ko nan ngeen ànd ak sëriñ bi xanaa di kontaan ci moom bu baax a baax di sant sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall di ñaan nag sa borom guddalu fanam te ko ndax yoon wi ko bàyyam bàyyee woon ku yokku danga ngaa wàññi te da koo yokk dara booyu ci sas yu booyut ndax moom wéet ak wéet li ko la yemale ànd kenn ak bañ ci ànd ak kenn la ci yemal li mu war a def dina ko def léegi na dañoo kontaan sant bu baax ndax ba mu ko daan def mel ni moom kese léegi nag daa ñëw ay doomam di ko ci jàppale ay rakkam di ko ci jàpp doomi rakkam Baye Aliou Fall Sëñ Assane ñëpp daal ñëw di jàpp doomam yi nekk ay jàmbaar nekk ay gaynde seen i nag di ñëw seen i xar suyeer yi bu ñëwee ñoom ñëpp ku ne da nga lu mat ay téeméeri xar sa kër ak fanweer di ko indi di ko defar ba mu baax di ko jox seen baay kon loolu kontaan dara boo ci nekkee ci nab nabi ba sa njaboot màgg fekk la dina ci jàppale loolu sant yàlla yàlla bu wér la di ñaan loolu yàgg lool te sax ndax da cee wéetoo nekk ci men na moom kese ci nab nabi tey bi mu ci dee nab nabi nag ba ay doomam fekk ko ci nag taxaw ko ci côté yëpp nag doomam yëpp la ko tàmbalee ci maay bi ba ci sëñ gën a ndaw ñëpp ay gaynde lañ barke Cheikh Ibra Fall ñoom ñëpp ay gaynde lañ dañoo ne taf ko ci côté yëpp lu ñu am def ko ci kenn ku ne jël sa alal ak sa ñaq ak say taal bi def ko ci bëgg suñu baay bi am na ndax ñun lu ñu am rek suñu baay am na moo ñu ko gënal barke Cheikh Ibra soxna si mën nañoo xam fi ne fan lañ tollu fi ne ci euh, xéwal waaw fii la ñuy daanaka ñu ngi bëgg a teggi man maa ngi lakk nii sax wàjji naa ndawal gi ba mu pare maa ngi muusal lakk daal di waaxu bëgg yóbbu ko Sëñ Tuubaa loolu. ki gën li lañ koy waa ki gën <laughs> soo amee li nga gën a bëgg da nga koy jox sëñ Tuubaa mu li nga gën a bëgg ndax ñun leer nañu lii am sëñ Tuubaa ñu ko may sunu njàmbaar may ñu ko te sëñ Abdou Lahad mu baax ma ne woon sëñ Tuubaa saa boo ko joxee loo man mu defal la loo mënut saa boo ko defalee loo mënut mu defal la la jomb te ñun xam nañu lii ñu am nag njomb teg sëñ la ndax liggéey gi ñu ko liggéeyee suñuy maam moom pënd ba ak poussière ba doo nga ne ci ñun te ñoo ngi sant bu baax nag di kontaan ci Cheikh Ibra suñ ko gisoon giñ naa ci maam Cheikh Ibra kenn ku ne lii muy liggéeyal suñuy xol nañ koy fekk fa mu nekk fay ko nag defal nañu loo xamante ni ba àdduna tukki mënuñu koo fay barke Cheikh Ibrahima nag kenn ku ne fa nga ne maanaam yow kese mën nga faa tëdd say mbir di dox te lépp Cheikh Ibrahima la kon ñun amuñu fayam luñ goree sunu ñaq wër te feeñ ci moom suñ goree luy tax yoonam bi rafet ci la xëy ci la ñuy gont suñ goree lépp loo tax ni danañ yab a Baay Faal di ko jaara ci ñun du am ci ñun ñun daal suñ ngor mooy képp ku war na la yabu Baay Faal tax na doo ko yebee Seex bi di ko jaara ci ñun ndax ñun loolu kese lañ ko deseel ndax lim ñu war a defal defal nañu ko mooy liggéeyal ñu wan ñu yoon ñu baax teg ñu ci yoonu siraatal mustaqim nag nit ku loo ko defal ba nga xam ne fii laa jaar ba yàlla ñax ma di leen la dëgg dox nag yomb na dox nag ku yaafus ba doxoo ba dem ku la raw yaa ko yóbbu sa Moodu Fall Fall kenn nga yorunu xel koom kenn nga faal la ilaha faal lii lépp faal nu yewaa la yi comme niñ leen ko waxee woon boobu léegi rek ñoo ngi fii ci kër Serigne Cheikh Fall Mbawar ci ñetteelu bis ci weeru koor gi Euh, ñu ñaanal baax Serigne Cheikh Fall Mbaor suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko ak mboolem njaboot gi ak mboolem taalibe yi ñu toog ak euh, koo xam ne nag jàmbaar la lool ci yoon wi di maam Cheikh Ibrahima Fall Mbaor maam Ibrahima Fall mu euh, fas yéene rek waxtaan ak moom tuuti ci. Euh, taarixu ndog yi ak liggéey bi nga xam ne euh, Serigne Alioune Fall Mbawar yoroon na ko mu jóge fi ki nga xam ne moo ko wutu Serigne Cheikh Fall Mbawar di ko doxal ba léegi di ñaan suñu borom mu gën a yàgg euh, Serigne bi ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la lan lañ mënoon a xam tuuti ci taarixu ndog yi nga xam ne moom ngeen ni togg. auzu min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah rabbi israh li sadri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa xadimi xadimihi al muridul akbar maam cheikh ibrahima fall babul muridin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmin yaqin wa baandu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy déglu ak di ñu seetaan noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare te di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi di ñaan sunu boroom nangul nu jëf yi ak koor yi di jiital sunu siyaar Cheikh Mahamadul Muntaqa mi fi nekkal sëriñ tubaa ak sëriñ Moustapha Fall moom sëñ Modou Mbend Fall mi nga xam ne moo toogee jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine di siyaar itam bu baax sunu bunt ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci ëtt bii nuy àddoo muy sëriñ Cheikh Fall Mbawor moom sëñ Aliou moom maam Cheikh Ibrahima Fall di nuyu itam waa Lamp Fall gépp ak mboolem njaboot yi nga xam ne yëpp it ña nga fa te doon njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall di leen sant itam ci liggéey bu yaatu bu rafet bi nga xam ne waxtu wu ne yéen a ngi koy amal ci ak leeral ak ku yaatal liggéeyub sëriñ bi. Euh, di tontu ci kàddu yi rek muy li nga xam ne mooy cosaanul ndogu cosaan li mooy ndigal ndax wax nañu ne bi nga xamee ne sëriñ bi jóge na gànnaar 1907. ñu indi ko Thièyène Jolof euh, bi mu ñëwee Thièyène Cheikh Ibra Fall boole ak njabootam ci góor ak jigéen jébbal ko ñu féete woo liggéey bi nga xam ne moo féete woon Thièyène ba yàlla def sëriñ bi ab liggéeyam mu war ko mottali si njaareem euh, muy Njurbel ci 1912 la fa sëriñ bi ñëw bi mu ñëwee nag ci la joxe ndigalal ndogu ndax murit bu nekk léeg-léeg dana nekk ay ci ay jëf wala waa ju baax ju ne dana ne ci ay jëf yooyu da koy nattal boppam ngir dàkk ci ngërëmal yàlla ak bëgguk sëriñam waaye lii nag dafay doon loo xam ne sëriñ bi moo ko dàkkal Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ndax ci 1912 boobu bi nga xamee ne ñëwee na njaareem ci yooyu jamono la bind lettre yónnee ko maam Cheikh Ibrahima Fall Thiès ndax ku ne xam ne 12 Cheikh Ibrahima ngi Thiès ndax 1904 la fa ñëw euh, gannaaw yebaloon na fa sëñ Mbayloo ci 1891 jàpp 1892 waaye nag ma ngi ko fa fekki. ci liggéey ba mu ko fa doon yaatalal ci 1904 12 nag la ko sëriñ bi jox ndigal bi mu ñëwee njaareem ci mu togg ndog yi euh, ndigal looloo dafa yeble bind ab lettre euh, wax ko ne ko dama am gan bëgg ku ma ko seenul teerul ma ko teeralal ma ko te gungeel ma ko mag ñett xam nga jooju wax ju naqaree dégg la kuy togg luy dab wax ne gan laa am waaye nag sëriñ bi ni mu daan def ci ay xasida ci weeru koor wu ne di tëgg ay xasida yoo xam ne da koy gàttandoo weeru koor kon ganam la goo xam ne moo ko war a ganale moo ko war a gunge moo ko war a dalal loola waraloon mu sante ko noonu maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamee ne nag lettre boobu ñëw ne Cheikh Ibrahima wax leen ne gan gi Serigne Bamba di wax de mooy weeru koor daan ne doom bind leen ndogu ñu bind ko muy deel kaaf hazaqir del kaat la keef vingt muy vingt-quatre hazaqir di neuf muy 29. 29 yooyu mu leen kat li ñuy xamle mooy weer wi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent lay doon mbaa fanweer ana ku ko woor ba koor gi jeex loo cay amee ñu ne ko faal yiwu yàlla daal lañ ciy séentu ak payam mu ne bu ko yàlla nanguwul nag wala yaasu la daal ne man dey li ma am ci koor ba weer wi wàcceeg tey ci sallallahu alayhi wa sallam kenn mësu ko cee am ndax li ma ci sëñ Bamba defal mooy weeru koor wu ne defal na ma ko bés bu ne maag ñi ma àndal ñu am weeru yàlla nangu. bu dee ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu am ñaar fukki weer ak juróom-ñeent bu dee fanweer ñu am fanweeri weer loolu mooy cosaana ndogu loolu amee itam ñu gis ne Cheikh Ibrahima Fall ci pastéefam ba ak pas-pasam ba ni ko sëriñ bi waxee woon ca mag ña ne leen du Ibra Fall damaa defal lu ma leen defalut lu ngeen ma defalut waaye damaa def ni ma yàlla def ndax yéen ñii ku ma ci ne woon awal fii ci bunt bi ngay aw yi la ma la wax waaye moom bu ma joxoon noon bii ne ko laggal defali ma nangam fa lay tay boppam waaye waaye du wut waneen yoon wu muy jaar loola nag ca la Cheikh Ibra Fall def ba jotee ndigal rek la mu njëkk a def mooy amuk dogu gu wér ci li sëriñ bi bëgg mu am ko te booba xam nañu ne moyen transport bariwut ci yooyu jamono 1912 bi sëriñ bi nekk njaareem li ëpp woon ci demikaay yi réew mi yi nga xam ne jàppoon nañ ne jàppandi na ay saxaar la waaye ay tali bariwul ay waruwaay bariwut wata bariwut waaye ak yaatalam nga ak ñawam nga ak xamam nga jamono ci la signé contrat ak semaine de fer bu Thiès société boobu yoroon saxaar gi ci saxaar gu ñu wax régulier ñu di ca teg ndogu yi mu di ko am njaay mu koy indi njaareem nga xool farluk man koo jële ji Thiès farluk yëpp ko ci saxaar farluk indi ko njaareem yenu sikkar ba jébbal ko sëriñ bi te waxtu wa ko sëriñ bi soxla du jot loolu mooy Pastef loolu mooy pas-pas ñun nag ñu am tawfeexu di ko togg di ko yanoo ci dëkk bi di ko yóbbu ci biir kër sëñ Touba ci dëkk bi kon loolu Baye Fall yi war nañu gën a góorgóorluwaat war nañu gën a farluwaat xam yan coono la ci Cheikh Ibrahima Fall daan daj ak yan taxawaay ñu gën a yokk sunu pasteef ak sunu ay yitte. bi nga xamee ne Cheikh Ibrahima jóge na fi itam ci 1930 di liggéey liggéey boobu yàlla dogal ba 15 euh, jàpp 16. seriñ bi bind ko leetar ne ko na ko fekk si njaareem mu wéyal liggéey boobu bi sëriñ bi jógee njabootu maam Cheikh Rafal gépp amul benn buntu bu des na ko Cheikh Ibra Fall doon defee di ko ni defee ci jamono Cheikh Mouhamadul Moustapha di ko def ci jamono Cheikh Mortala noonu lañ ko defee itam ci mbooleem gaa yu baax yëpp yi nga xam ne ay buntu kër la ci buntu kër maam bi Ibra looloo waral ëtt bii ngeen tàbbi si tey muy ëttub Sëñ Aliou Fall Mbawar sëriñ bi amoon ci liggéey bu yaatu boo xam ne daf ko ci daan taxawal. ku ba dëkk bi sax bi ñu demee ba sëriñ bi di fa soog a sañ ci 54 te miinuñu ko lool borom nañi lañ daan sëñ bi ci nañi wala sëriñ bi ci dab yi ci nag yi ñu daan jiital di yóbbu Cheikh Mamadou Fadal wala ay dab yoo xam ne waxtu wu ne danañ gis ñu ko yanoo fii ci penc mi muy Touba Fall di ko jébbali ki fi nekkal Serigne Touba noonu la ko wéyale ci 54. moom itam gannaaw Cheikh Momar Talla itam di magam ju baax ja mu wéy liggéey boobu ci 54 ba 78 la fi jóge 78 boobu bi mu ci wàccee ci rakkaati gàmm fukki fan ak ñeent ci la sëriñ bi wéyal liggéey boobu di ko doxal ba bisum ndogub tey jii nga xam ne ñoo toog di waxtaan. Euh, ci liggéey boobu nga ñu fekk. ñu gis seen àndandoo ak waa kër euh, Serigne Mor Talla mu mel ne loolu lu yàgg la euh, ci soxna soxna Fat Diop seer. waaw xam nga Serigne Mor ak soxna Fat Diop ak sëñ àll yi ñoo bokk soxna Fat Diop seer sëñ Aliou am taxawaay bu rafet boo xam ne ko doon def diggam ak Cheikh Mor ndax bi Serigne Mor toogee cinquante ba cinquante quatre. moom jëfam moo doonoon dajale mbooleem loo xam ne jàpp na ni dana doxal liggéeyub sëriñ bi jébal ko ko ba 54 nag bi nga xam ne sëriñ Mor jóge na fi moom mu wéyee liggéey boobu njabootu Cheikh Mor Talla di doxeek moom noonu ñu defee seen i ndogu ànd ko ak sëñ Aliou muy sëñ Abdou Assis Fall ak sëñ Sidi mi nga xam ne moo ko jiitu bi loolu weesoo itam ci la njaboot gi di def bu nu toggee fii ku fi mag ñu fekki ko ànd ak moom dem. bi sëñ Assis nekkee loolu la sëriñ bi doon doxeek moom bi yàlla dogalee su mu mu mu wàcc ab liggéey ab liggéeyam mat ñu wéyal loolu sëñ Abdoulahi Fall muy sëñ Abdou Rokhaya Fall loolu sabab ànd gi muy ànd goo xam ne ànd bokk la waaye ànd la goo xam ne ànd bokk pas-pas mhm. naa ci kanam tuuti rek sëñ maam Ibra dina ànd ak mbooloo mi jébbal sëriñ bi liggéey bi. waaw noo koy waaj noo ngi koy waaj bis bu nekk nu ñu koy defee. am ne bu ñu noppee danañ boole dab yi ak tudd yàlla ba jébbal ko Serigne Touba loolu la itam lañ fas yéene di ko ci fanweeri fan yi nga xam ne yépp moom la weer wi doon ba ca bisub kori ba muy añub kori la mbokk yi euh, comme ni ngeen ko gisee ci suba ak léegi gis ngeen fi ñu leen jaaral yëpp dem nañ fa la nga xamante ni mooy kër Serigne Mor Talla Fall euh, waxtaan ak euh, ki nga xamante ni mooy jiite ndogo yi waaye ki nga xamante ni moo ne ci. Euh, waañ bi waaye ki nga xamante ni moom la sëriñ bi jox kàddu ngir ñu waxtaan ak moom ci lu jëm ci ndogo yi euh, gis ngeen kàddu yi nga xam ne jëm na fa euh, waañ wa dem nañ fa dem nañ fa tamit ngeen xamante ni mooy kër sëriñ Cheikh Fall Mbawar gis ngeen kàddu yi nga xam ne jug na fa ñoom kër sëriñ Cheikh Fall Mbawar ak kër sëriñ Mortala dañuy benn ndax soxna Faat Diop Saer moo jur sëriñ Mortala waaye soxna Faat Diop Saer moo jur ki ñuy wax sëriñ Aliou Fall Mbawar loolu moo waral ñoom seen i ndogu Eh, ci dañuy àndandoo andindoo andindoo ko fii nga xamante ni mooy résidence ci kër Serigne Touba gis ngeen bo mbooloo mi eh, waa Daaru Xafoor léegi lañ agsi ak mbooleem rek eh, koo xamante ni rek ak baay Fall nga te tënku ci ndigalul maam Cheikh Ibrahima Fall warteef la ci yow sag weeru koor nga togg ndogu indil ko ki fi nekkal Serigne Touba noonu lañ àndeek waa kër Serigne Mortala ak waa kër Serigne Aliou Fall Mbawar ñëw fii ci résidence ngir ñu jëbbale seenub liggéey noonu lañ koy toppee diiran weeru koor gi di jeex ànd ak yéen ak ci mbooleem buntu kër yi dara du ci bëri ci incha allah rabi ñu dem ak sëriñ bi bàyyi leen ak sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah